c'est-à-dire dama wax ne Sénégalais yi ñun ñëpp dañ war a juste ku def ku def yoon ñu ne la def nga yoon ku deful yoon ñu ne deful yoon lii ñu lewee nii c'est bien parce que pour la pour jàmm. Mhm. am baax na. waaye itam bu ñu wax rek ne way état bi ah, lewee na ko parce que waru ko waru waru ko def Ousmane Sonko muy bañ. mais kan def état bi. Ah, non waxuma la yow de je parle. non mais du yow généralise je dis. que sénégalais yi nga xam ne dañoo jàpp daal ne état yi waruñu koon def on tort su fekkee ne dénoncé wuñu woon Ousmane Sonko bañ ko doon convoqué ne ko yow ñëwal. ñëwal yi woo ko bu ne du ñëw ñu woo ko bu ne xaw ma nu ñu ko tuddee encore day def euh, euh, insoumission boobu xam na la ko tuddee ah ne ne du wuy ji loolu dañ ko war a dénoncé c'est-à-dire que lii xew nii yëpp li daal ci xew yëpp c'est la conséquence de ces actes. ndax su fekkoon ne ko woon comme tout bon citoyen ne ko kaay wuy si mu dem wuy si xañ na du ñu yegg fii. kon da nga jàpp ni blocus bi lu normal la. lu lu normal la parce que soo taxawee nga ne état damay xeex ak yow nga attaqué état mais état dafa war a fayu parce que état war ta faible devant un individu tous les citoyens sont égaux devant la loi dans un pays s'il n'y a pas d'institution qui fonctionne nga xam ne ñii ñooy ñii ñii ñooy kilifa yi. Mhm. ñii ñooy yor autorité yi mais état boobu comme ni nga ko waxee loolu su otaa bi nërmeeloo nation bi dafay nërmeeloo. léegi leneen li ma la si tegal rek balaa may ñëw ci sama confrère yi la faiblesse de l'État est-ce que aussi duñ ko natt itam euh, ci décision de justice bi nga xamante ni génn na ñun ñëpp ñu yëg ko et que appliqué wuñ ko jusqu'au bout euh, mooy le fait que ñu condamné Ousmane ko non c'est-à-dire euh, yéen. ñu condamné ko te jàppuñu ko. Ousmane Sonko ñu convoqué mu bañ bañ a dem tribunal bañ a wuyu ji Ousmane Sonko se barricade à boo xam ne c'est lui-même qui s'est barricadé et tout le monde devait trouver que se barricader boobu c'est c'est pas normal parce que y a des gens yoo xam ne qui travaillent dans l'hôpital qui est à côté de chez lui ñoo xam ne qui ont été impactés il y a même des véhicules qui ont été et peut-être des personnes qui l'ont voulu soigner et qui qui ne se sont pas soignées fii nag c'est une affaire de procédure mm-hmm. dans une procédure peut-être que yow ak man maîtriser wuñ ko ay ndëgg sa rajo ci nekk yoo xam ne état bi am na droit am na droit moytu ko parce que état war na def loo xam ne ëllëg day tax. toute sa procédure la procédure bi def alors mu daanu.